màggal gi tey 18 safar la euh, foo dugg ci àddina moo xam ci Sénégal wala sax ci bitim réew ñu ngi dund mbégteem 18 safar gi ndax sëriñ Bamba ni woon ku sama mbég di sa mbég bu 18 safar delsee nag ma santale suñu borom moo tax ñu ngi ko koy santale fépp ci àddina rawatina nag fii lee ci dëkkam bu sell bi lee di Touba Mbacké 7TV la ñu àndal euh, booboog léegi ñu ngi leen di dëgtal wàccaayu màggal gi waaye tey ci bisu màggal gi euh, dara du leen ci réer am nañu ñu féete ca wàllum jumaa ja ñenn ñu nekk ci yeneen diwaan ci biir Touba ñun ñu ngi file ci Ndindi fas yéene leen digtal lépp loo xam ne rek aju na ci màggal gi ni ma ko waxee ñu ngi kër buntu ki nga xamante ni mooy kër Cheikh Abdoul Karim Mbacke borom makaarimal axlaa ki doon Serigne Fallou Mbacke ci taar ba doon ko ci xam-xam ba doon ko ci yar gi kebe ñu ànd dugg ci biir kër gi xool euh, sëñ Abdoul Karim ana nan la dundee li nga xamante ni moom moo di màggal Touba 2023 ana nan la ci àndeek soxnaam yu baax yi le waaye ana nan la ci àndeek itam njaboot gi ak taalibe yi Euh, nindi la ñu nekk kër sëñ Abdou Karim Mbacké dañuy dugg ñu waxtaan ak mbokk taalibe yi xool cheikh bi moom sëñ Abdou Karim ana nan lay dundee li nga xamante ni moom moo di màggal gi moom ak i soxnaam waaye itam moom ak taalibe yi waaye itam moom ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo di njabootam gu tedd gilee lu am solo lay doon topp leen ko sur la 7 TV incha allah rabbi ñu bégal leen ci màggal gi dara du leen ci réer kebe yaa ngi gis affluence bi ambiance bu am solo. bi nga xamante ne moom la ñu yeewoo tey ci bëccëgu màggal gi fii ci kër Serigne Abdoul Karim Mbacké borom Makarimal Akhlah nga gis xale yu jigéen yi soxna yi ñu ànd ak yiw ànd ak taar eh, ay eh, sàlloo itam ak li nga xamante ni war ma yi la muy war ma yi nga xamante ni suñu xalif bu tedd bi almuntaxa Mbacké Bachir yàlla fi yàgg ca wér moom la digte dégtale eh, Baye Fall di ci def lu am solo gisuma jigéen bu teg cheveux gisuma ku def perruque gisuma ku def pose ongle wala cils te loolu mooy warma yi nga xamante ni moom la ñu war a sàlloo Kébé pale baa ngoog fii mooy kër Cheikh Abdoul Karim Mbacké borom makaarimal axlaa fii ci Ndindy eh, fi la ñëw tey ngir eh, ànd ak moom li nga xamante ni moom moo di màggal gu tedd gi yaa ngi gis Baay faa yi ci li nga xamante ni moom moo di organisation bi eh, ñu ngi fii ci kër Cheikh Abdoul Karim Mbacké borom makaarimal axlaa moom la ñuy fas yéene àndal ci màggal gi ak njaboot gi Kébé bismillah ñu ñu ñu dugg ci biir kër gi xool actuellement nag ci waxtu ndékki la ñu toll xam naa ne fi mu toll bernde yi la boo demee kër yaay puy da nga fekk ñu dressé ba mu baax nga dugg kër yaay mbàkkee ñu dressé ba mu baax waaye itam boo demee fi nga xamante ni moom moo di ci doomam ju jigéen ju tedd jooju nga xamante ni moom moo di soxna may abdalaat moom itam soxna may laat xam naa ne këram fi mu toll nii tubaarkàlla xëlëf-xëlëf gi tàmbali na ah murit yi taalibe yi ñoo ngi ci li nga xamante ni moom moo di màggaluk sëriñ bàmba gi bisu cant la bisu bernde la bisu xéewal la ay bernde laa ki xéewal képp fii ci Ndindy eh, nañu dugg kebe ñu yegg pale bi nag tubaarkàlla dafa rëy gis nga fa ñu jógee ci tali bi ba tey maa ngi ci biir kër gi nañu nañu njëkkee fee nga xamante ni maa ngi seen cour bi actuellement nit ñi ñi ngi ko wër xamaguma lan moo fa nekk nañu dem ñu xool ko xam naa ne waxtu ndékki la ñuy yem euh, ñu xool kër gi ana lan moo fa ne buñ fa génnee du ñàkk ñu dugg ci nga xamante ni moom moo di suñu bàjjen ñu koy wax bàjjen soxna May moom itam euh, leer la ci Serigne Abdou Karim ñu xool ana nan lay euh, dunde li nga xamante ni moom moo di màggalu Serigne Touba gile di maamam góor gi demoon wiir wiir rek maa yomba dem coutume jaari daw me ke semal Fuuta gàgganti gànnaar Ramloo Mbaaxaan Tubloo Bursin Kumba Ndóofeen kookoy maamul Serigne Abdou Karim mi nga xamante ne moom la ñu nekk këram kay waaw kii sama xarit la Kébé kii sama xarit la salaamaaleykum saa baay maa ngi ziar murit maa ngi ziar ngi lay ziar moom suma xarit la jàmbaar la fii la ci kër gi Abdoulaye màggal gi yoor yoor gi ban ban yëg-yëg ngay am fi mu toll. jégal ma <laughs> rek. moom soo xarit la du ma ko bañal dara nañu dugg ñu xool euh, li nga xamante ni moom moo di dressage bi am kër gi beneen Baye Fall la ni <laughs> moom nangu ta feeñ moom tamit sama xarit la bokk Kébé yaa ngi gis fii ci ci ci barab yi la bokk barab yi nga xamante ni dañu fi bernde ñi nga xamante ni ñoom ñooy si Cheikh du Bamba yi waaye itam ñoom ñooy taalibe Baye Karim yi nga xamante ni ñoo nekk file ci kër gi xam naa ne pour ñu am fi accès faaw dañuy wiiri euh, ngir mën a yegg ci porte ba waaye est-ce que duñu njëkkee ci sama bàjjen soxna May dañu njëkkee ci bàjjen soxna May bu ñu yéegee kër bàjjen soxna May moom xool nu mu taaje ay ndékkeem njeem moo ñu gën a jege euh, ndax buntu kër gaa ngi lee ci suñu ndeyjoor bu ñu fa génnee nag soog a dugg feefu ci tànt bi xam naa ne lu am solo lay doon waaw soxna yi nuyu nañu leen mbokki téléspectateurs yi ni ñu leen ko waxee kër Cheikh Abdoul Karim Mbacké la ñu ma borom makaarimal axlaa euh, njëkkee naa fii ci kër doomam ju jigéen ji nga xamante ni moom moo di bàjjan soxna May Kébé affluence bi am na solo waxtu ndékki la ñu tombeel ci yor yoru màggal gi laataa maa yëgg ci nit ñi damaa bëgg nga jëlal ma bernde yi tubaarkàlla xam nga bu ñuy waxee màggal dañu naan cant la te ku ne cant ne bernde yaa ngi gis euh, tubaarkàlla nataalu yaan yi nga xamante ni euh, kooku moom moo dile ki nga xamante ni moom moo di bàjjen soxna may du ñàkk daañ ko gis ci biir mbooloo mi incha allahu taala dressage bi yànj na am na solo kebe nañu nañu nañu nañu dugg euh, ñëwal bismillah ñu ñu xool an li nga xamante ni moom moo nekk ci biir waañ bi nga xamante ni moom moo di waañu suñu bàjjen soxna May yaa ngi gis ñoo ngi nekk ci li nga xamante ni moom moo di wàccaayu ndékki yi di dressé li nga xamante ni moom moo di table yi mbokki téléspectateurs yi yi ñuy topp ci 7TV màggalu Touba 2023 dara du leen ci rëcc rawatina fii nga xamante ni fi lañ nekk ci Ndindi nga gis soxna yi ci ay nuróole yu rafet waaye kebe ñëwal jëlama table yi ñëwal jëlee ma dressage yi bu ko defee euh, murit yi nga xamante ne ñu ngi ñuy ci 7TV xam ne fii ci euh, Ndindy kër Baye Karim ñu ngi dundu màggal gi ñu ngi koy dund ci ni ñu ko waree a dunde ndax ku ne màggal ne bernde ku ne màggal xam ne bisug cant la te ku ne cant nag ne bernde ca bernde la ca gën bokk na ci ren bi waaw yooyu yooyu yooyu yànj na nga gis table jooju nga xamante ne fii la ci kër suñu bàjjen soxna May di leeru Cheikh Abdoul Karim Mbacke borom Makarimal Axla Mbacke Balla yàlla na fi yàgg ci wér. kebe jëlal ma table yi jëlal ma ambiance bi ñu xool ni murid yi di dundee li nga xamante ni moom moo di màggalu Touba gi. bisu cant la bisu cant la bisu bernde la moo waral fii ci kër bàjjan soxna May tubarkalla defar nañu taabal yi ba mu yànj bàjjan a ngoog bàjjan a ngoog ci yiw bi bàjjan a ngoog ci taar bi bàjjan a ngoogu ci yar bi leeru Cheikh Abdoul Karim Mbacke Serigne Bambaay maamam moo dem wiir wiir jaari yomba dem kuti meeg daw me maami Cheikh Muntaxa Mbacke Bachir mi ci jal bi borom mbég meeg taar bi kebe ñëwal li waay kebe kebe kebe kebe kaay lii ah màggal gi daal alaa daw me na tubaarkàlla lii ci ay ndékki xam naa ne li ñuy wax naan ku la jox ndékki moom bu la nee xaaral añ boo yeboo xaar ndax ndékki lu mel nii moom ku la ko jox xam naa ne añ ba tubaarkàlla dana dana dana yéeme. yaa ngi jël jëmm ju tedd jooju nga xamante ni moom moo di Cheikh Abdoul Karim Mbacké nataal boobu ñu boole ko ki nga xamante ni moom moo di leeram di doomam ju jigéen ji nga xamante ni moom moo di euh, bàjjen soxna May euh, Kébér bëgg nga topp ma ñu jël suñu jëwriñ yi nga xamante ni ñoom ñoo féete ci wàllu organisation bi yaa booy maa ngi lay ziar maa lay ziar bu baax bi maa ngi lay nuyu. maa ngi lay delloo ziar bu baax yaa ngi ci télévision 7TV. ak sa jërëjëf euh, ñu ñëw jël si màggaluk Cheikh Abdoul Karim ji muy euh, màggale fii ci Ndindi di màggaluk maamam gi Serigne mbamba nga nekk ci wàllum organisation bi nuyul téléspectateurs yi te présenté leen jëmm ji taxaw mooy kan. waaw ñoo ngi nuyu mboolem ñi nga xam ne ñooy bàyyi xel tele bi euh, di 7TV di leen jox seen wàccuwaay. man nag Cheikh Seck laa tudd di jëwriñ fii ci kër Soxna May laxaat moom Serigne Abdou Karim Mbacké ñoo ngi siyaare mboolem murit yi ak mboolem ñi nga xam ne ñooy bàyyi xel màggal gi ñëpp jërëjëf. Euh, murit tey nga nekk fii jëwriñ ci biir kër Soxna euh, euh, Badiane Soxna May ñu fekk la fi gis organisation bi ni mu demee tey boo ñuy tënkal organisation bi ana nan ngeen ko waajale màggal gi waaye itam bésu tey nan ngeen fas yéenee doxale bés bi. waa xam nga màggal moom. siñ tubaa ci boppam moo ne nañ ko santale yàlla cant gi nag moom sëñ tubaa mi nga xam ne moo ne nañ ko santale yàlla moo ko njëkk a defal boppam ndax moo njëkk a génne xéewal gi nga xam ne moo jëm ci màggal mu defal ko ci boppam ñu jëndal ko ci gàtt beneen bi ci desit mu ne mboolem kuy murit nañu xam ni bis bii mooy sunu bis ci la sunu defaru àdduna ak alaaxira ne fii nag sëñ Abdou Karim Mbàkke la waaye fii nga taxaw ni mooy fi nga xam ne moom la sëriñ bi jagleel soxna may laxaat mi nga xam ne mooy ab taawam mbooloo mi nga gis di ay mbooloom di daayira yoo xam ni fenn fu nekk si senegal am na fa mbooloo ñoom ñoo ñëw nii nekk nii gis nga leen seen oto si rafet yi nga xam ne moom lañ nekk ñun nag màggal lii lan baaxoo màggal Touba bu jot nii rek lañ koy defee màggalu sëñ Fallou it nii lañ koy defee soxna si doon koo xam ne nag moom la sëñ Fallou defoon jaay njuréelam jëndee koog taalibe sëñ du Karim Mbacke def ko moom mii noonu la def si Abdou Karim mooy dafa jaay njuréelam jënd ko taalibe waaw màggal gi nag doon loo xam ni sëñ Tuubaa dafa ni sababu xaybatiya an allaha arada an anaala minhu jaa wa an akoona shafian fi xaw mi waaye wa an akoona xaadiman fi daw fi mi dafa ni li sabab sama tukki ngir ma dem ci exil bi nga xam ni moom la ma nasaraan bi exilé yàlla moo namoon ma doon ki nga xam ne mooy xaadim rasul di liggéeyal liggéeyaakoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam garaat boobu nag mënu ko woon am mukk li fekk jogewul fii dem ci àll bi ànd ak tubaab yi juróom-ñettaat yu manqué bis bi ñuy màggal nag xam nga ku mës a dem xare ba ñëw ci ngay woote maanaam di bàkku wane ne maa daan bis bii nuy màggal nag mooy bis bi fi Sëriñ Tuubaa jóge di dem moom waaw nga xam ni moom lay màggal waaw waaw moo ko mës def di dem di woote ne bis bi nga xam ne ci laay dem nañ ma sant la yàlla waaw ah, fàttali ñu tur bi jëwriñ Cheikh Seck Cheikh Seck waaw di jëwriñ fii ci kër Sëriñ Abdou Karim waaw waaw eh, maa ngi gis sama beneen yaay bu bu taxaw kebe ajaa Ndeye Adja Ndeye Ndoumbane euh, moom mi ngi fii ci kër euh, Badiane Soxna May dañu ko nuyu euh, mu nuyoog téléspectateurs yi te wax ñu taxawaayam ci kër gi lan la yaay booy ñu ngi lay waaw maa nga leen di fay nuyoo bu baax man tamit di leen delloo ziar mhm. di sant yàlla julli ci Yonent bi di ziar nag Serigne Abdou Karim Mbacke sama Serigne mooy baayu Soxna May tabarkàlla macha allah di nit ku baax ku laabiir ku téye dongo yi téye soxna yi bëgg ñëpp. doon borom xol boo xam ne makaarimul axlaa rek moo ne ci moom ñu koy ñaanal moom it mu yàgg fi ak njaboot ki may ziar soxna maam ami Mbàkke yaay waajuru soxna may <coughs> ak mboolem këpp koo xam ne rek sëñ bi sa euh, yaa ngi sëñ bi sa moo la waaye di siyaar soxna may ak ay rakkam di nuyu ñëpp man Adja nu Numbaane Mbaye ak mu jot kër soxna may gi fi laay nekk sol ci déguisement yi ànd koog moom rek ci màggal gi di ko ñaanal gudd fan ak wér ak wérle yàlla def mu gën koo man ndax moom dafa jaay ak njureelam jënd ak taalu be moom lu mu am rek baayam la ko yéene ak mbokki baayam ak ndeyam ju baax ji tabarkàlla macha allah ak soxna yi ci kër géeg njaboot géeg baay faal moom togg di joxe rek la xam day benn rek comme ni yaayam di def rek lay def maa ngi siyaar ñëpp di kontaan ci ñëpp di siyaar sëñ xaadim mbàkke ak doom baayam yëpp ak ay rakkam jërëjëf sanday jërëjëf eh, kebe maa ngi gis yaay yi ñu ngi ci organisation bi sama yaay laxasaay bi rafet na maa ngi lay nuyu yaa ngi ci 7TV boo ñuy wax sa taxawaay ci kër ki nga xamante ni moom moo di bàjjen soxna may lan lay doon xanaa nekk ci liggéey bi rek nekk ci liggéey bi rek jàpp ci rek tëw bàyyi waa dëgg neexul lool rek lañ ñëw liggéeyal sëñ bi rek ak soxna waaw xanaa rek fa ñoo lay fay bu baax la ziar nan ngay dundee mbégte màggal gi xanaa kontaan rek te bég di jàppale soxna May Màkke si bisam bii di bis euh, màggal gi si liggéey bi di sant sëñ Abdou Karim Mbacké it bu baax a baax a baax moom fi tax a daje waaw Euh, mi ngi noonu màggal gaa ngoog xëlëf xëlëf gi tàmbali na euh, ñi ngi ci waañ bi di dund ñu jël ñëwal ñëwal nii ñëwal nii sama xarit yi dañoo yànj sañse waaye itam topp li nga xamante ni mooy sart yi tey gisuma benn xale bu teg périg kebe maa leen di. lu ah, tax ñuy teg périg dañ koo tere. waaw waaye nag ngeen jàmm kanam xaw a defar. waaw nii lañ dundee màggal gi topp ci ginnaaw soxna May rek waaw. nii daal lañ tey nan ngeen di dundee màggal gi mbégte mi fii ci kër soxna May. ah xana bég gën a rek. gën a bég rek sant sëriñ Tuubaa bu baax a baax sant sëñ Abdou Karim Mbacke Fallelu ak sunu yaakaar bee soxna may laat. yaay booy nuyu naa la. ñu ngi lay fay. tur bi nan la. Soxna Xaar. Soxna. Soxna Xaar. Soxna Xaar yaa ngi fi nga xamante ne moom moo di kër Soxna May euh, nan ngay dundee mbégte màggal gi. kontaan rek. barke sëñ Fall ndax lépp taalibe la. amaana Soxna May mii moom mi nga xamante ne mooy suñu buntu Cheikh. Abdoul Karim Mbacke ñu ngi koy sant bu wér lii lépp moo ko def ci ñun barke sëñ Fallou Mbacke jëmmam ji mooy suñ sëñ Abdou Karim Mbacke mooy suñu sëñ Fallou mu tàggat ñu yar ñu tete ñu sig yaay Fall dox ndànk wax ndànk taq suñu ndig laxasaayu liggéeyal moom jàngoog damaa bëgg nga jëlal ma ko mbokki téléspectateurs yi seetaan euh, ràññee ko euh, muy soxna su baax su am taalube ndax tey bu ko neexoon euh, toog ca saalam ñi fi nekk def organisation bi toppatoo lépp ba mu mat waaye li ñu naan daa jaay njureel jënd taalibe loolu mooy dëgg nga gis tey mu summi mantum doomi soxna gi mu doon jënd ko mantum taalibe ne ci waañ bi ànd koog taalibe yi ne waañ bi ànd kook ñu yor wàllu organisation bi ne àndandoo koog ñun boo rek di kaf ak ñun di reetaan ak ñun boo ñëwee da nga naan sax ñun ñëpp ñoo bokk yem rëyul rëy wul suñu kaaw dëgg yàlla ku baax. yàlla yàlla guddal fanam Baye Fall nuyu nañ la. sant Serigne Touba Khadim Rasoul di gërëm Cheikh Abdoul Karim Mbacké Fallilou mm-hmm. di ko ñaanal mu yàgg fi te wér mm-hmm. eh, man sama dala ngi ci biir mm-hmm. eh, ci dallu Cheikh Abdoul Karim laa waaye dama mënul dugg Touba ci kër gi bu ma duggee même bu dee deux minutes dinaa jaar ñëw ziar si suma xarit suma raq suma sëriñ suma lépp ndax moom royuwaay la euh, kii tiitaru Cheikh Abdoul Karim la dëgg la te Serigne Touba daf ñoo dimbali soxna may dafa yor cër ñaari góor yàlla tool yi moo ci man boo ko fekkee Medina boobu wala Touba Bogo bu nit ñi gàddoo ileer mu gàddu ileer bu nit ñi di def dara barke sëriñ fàll moo mën góor ñi bu boo ko fekkee fii ci kër gi màggalu Kazu Rajab mu tàggoog sagoom boo ko gisee saa yu soxna may génnee dem à l'étranger mu ngi xool nu mu nu mu nu mu nu mu tarbiyoo baayam nu mu bëggalee baayam addiya moo ci man moo mën góor ñëpp ci addiya moo mën jigéen ñëpp ci addiya kii dañ koy ñaanal yàlla gudd fan ak wér ci barke Cheikhuna Cheikhul Khadim gis ngeen waañ gi nu mu mel mënoon na ko bàyyee ak ndongo yi mënoon na ko bàyyee jigéen ñi mënoon na ko bàyyee góor ñi waaye day ñëw li ngay def lay def mooy séddale mooy def le seex na may yàlla na gudd fan ci barke Serigne Fall. yàlla na gudd fan Serigne Fall looy maamam euh, yaa booy yaa booy sa soppe baa ngoog Mamadou soxna bu sami ci baari ak saer soxna bu sami ci baari Fallou Awa bu ki yeggale jumaa ji taal lamp yi ba max ñeenti goudron yi kun jàpp mu ni bàyyi leen laaw la cat nday mbàkke bay mbàkke soxna maam ami lat jooro yaayam soxna maam ami seex coroy baayam borom mbàkke baari barki demb la yaayam màggal mbàkke baari laaw la cat tabarkàlla soxna may sëñ abdou karim mbàkke sa baay gërëm na la sa yaay gërëm na ñi nga bokkal sëñ bi gërëm nañ la laaw la cat man aji nday nu mbaat mbay kontaan naa de sama doom ji laaw la cat jërëjëf yaay boy loolu loolu loolu mënta loolu mënta ñàkk Serigne Cheikh Gaynde ma daan na wax ne way ñaara koy bañ ki amul li mu maye ak ki amul juddu te kii borom juddu la Serigne Fall looy sa maam euh, doy na way Serigne Abdou Karim ay sa baay dooy na way waaye maama ma demoon euh, fa nga xamante ni moom moo di Gabon dem wiir wiir dem garam basam julli ñaari rakka yi nga xamante ne doomi soxna may la ñu ngi koy nuyu ah ñu ngi koy nuyu mooy taawam bu góor kii sëtu Serigne Abdou Karim la sëriñ sëñ Abdou Karim la nuyu nañ ko bu baax Mbacke Ba la ñaanal ñu dégg nga. jërëjëf waay jërëjëf jërëjëf waaw góore waay mi ngi noonu euh, ñi ngi ci waañ bi est ce que war ñu woon jël chef yi ma laaj leen ñoom nu ñu nu ñu nekkee ci wàllum cuisine bi kaay chef kaay non chef faaw ñëwal nii ñëwal taxawee nii ñoom ñoo nekk ci ci ci wax moo la mais mënul ñàkk nga sànni ñaari baat ci wàllu organisation bi ci hygiène bi ci ana nan ngeen dalale gan yi loolu mën ta ñàkk bismillah euh, bismillahi rahmaani rahim Euh, ñu ngi tàmbale tàmbale euh, sant yàlla julli si yonent Seydina Mouhamed euh, sant sant sëñ sëñ Touba mhm. sant Cheikh Abdou Karim Mbacke sant Soxna May Laat Mbacke mi nga xam ne tey moom mooy waayam moom moo waral yëpp pour ngir jàppale sëñ bi màggal gi nag gis nga ni leen ko ni leen ni leen ko euh, tàmbali defee at bu ne mm. muy gën di sawaan di bawaan muy gën di neex ñu si gën di jàpp di si gën a jox suñu dooleeg suñu lépp mm. ngir euh, ñi nga xam ne ñoo ñëw tey ngir màgg ngir sëñ Tuubaa bëgg mm. ñëpp ànd ak moom comme ni neex mais yow cant gi li nga féetewoo mooy wàllum bernde yi organisation bi dressé table yi ba mu yàñ waaw dressé table yi togg yeeg yëpp kay macha allah waaw euh, kii ci wàllum design bi décoration yeeg bagage mel noonu ñu ngi sant ñu ngi fay bu bu wér waaye man la Pico Pico bu sëñ Abdou Karim nekk ci ëtt soxna may laxaat waaw man maa yor wàllum décoration yi baas yeeg lépp luy design yi rek machine di ci yëngu daal waaw Fall. Euh, nan ngay dundee fi mu toll nii nag li nga xamante ni moom moo di mbégte màggal waaw mbégte gi moom parce que presque une semaine ah ñu ngi ci bagage yi xam nga ñu ngi jàpp taw bàyyi ndax ñun amuñu ku dul sëñ Touba amuñu ku dul euh, Baye Karim Mbacke mu fàlliloo waaw moom mi ñu booleeg nag soxna may laxaat te rëccuñu ko benn yoon ndax bu ñu nekkee ci kër gi ba léegi liggéey lañ ñu xamee ah waaw te yoonu yokkute lañ ne waaw. ok waaw góor Baye Fall nañ la jaajëfal nañ la bu baax euh, kebe jëlal ma mbooloo mi affluence bi nga xamante ne actuellement moom moo am fii ci kër euh, soxna May Mbacké borom jus yeeg ndox yi kaay yow yow man yow laa gën a soxla man yow gën a yittewoo yow fi ñu toll nii ñi may waxtaanal yëpp yow yaa gën a ñor. akasa bàyyi fa ma lay ziar xam nga dafa tànge loolu mënta ñàkk ndeysaan loolu moom daa bokk ci màggal gi nuyu nañ bi nan la Jibi Karim Jibi baax baax mhm. di leen màggal mhm. di wér mhm. ci teewaay bi ngeen teew ci bis Serigne Touba bi comme ni ngeen fekkee rek ñu koy defee nii chaque année nag noonu lañu koy defee maanaam liggéey bi maîtriser nañ ko maîtriser nañ ko xam nañ ko te nag lépp dañ koy def rek ngir dongo Serigne Touba yi kon nag dañ màggal rek ci jàmm waaw. acca mi ngi noonu léegi nag dañuy daal di jublu ci li nga xamante ni moom moo di service bi actuellement dressé nañu table yi ba noppi waaye ku ne xam na ne waxtu ndekki jot na te bernde gi mooy faratay màggal gi euh, alaaji Kebe may bàyyi la nga jël mbooloo mi nii ñu nekk fii nga xamante ni euh, lii ci waañ bi la ci kanam tuuti daañu wàcc ci suuf wan leen dal bi nit ñi ni ñu toogee loolu mënu la ñàkk lii itam daa bokk ci ci màggal gi. lii daa bokk ci sëriñ cëb sëriñ Bàmba bi lii daa bokk ci mbégte mi ñu sëriñ Tuubaa indil xam nga ab murit bu yeewoo li muy njëkk a bëgg mooy naan kafe déglu xasida loolu mënta ñàkk ñi ñëw fii de ci wàllum kafe gi eh, kan mooy jëriñu café gi kuy jëriñ bi eh, Abdoul Karim maa ngi leen nuyu. maa maa lay fay. mbaa am nga jàmm maa ngi sant Serigne Touba yaa ànd ci wàllum kafe gi waaw gis nga de ànd seeg sama gars yi ñoom Sigim ak ñoom Abdou ak sama gars yi rek ñoom a dooleel quoi xam nga rek ak ñoom Saliou suñu jëwrin waaw mais mais xelil café gi jox ñu nu naan xelil euh, murit nuyu nañ la ñu ngi siyaar bu baax baay fii ngeen nekk ci wàllum di ànd ak suñu jëwriñ di liggéey rek euh, euh, lan ngeen di yëg bu ngeen nekkee di defar bernde yi ngir jox ko taalibe yi xanaa di santaat sëriñ bi rek parce que lépp lu ñu am sëriñ bi moo ñu ko defal fii ñu koy sant bu baax di ko gërëm loolu ñaanal yàlla mu yàgg fi loolu tëwër ñaanal sëñ Abdul Karim Mbacke mu yàgg fi ñaanal soxna may laat mu yàgg fi loolu tëwër lépp mooy di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te ànd ak wér barke Cheikhul Khadim waaw sëñ Ba waaw maa ngi lay fay maa ngi lay fay <laughs> maa ngi lay fay. kon kon waañ bi dafa am kafe am ñu géré was bi am tee yooyu yëpp ay xeetu euh, yu yu baax la yoo xam ne ci màggal gi la bokk. waaw macha allah. dañuy nuyoo waar rek di santaat ku tedd gi. Kébé maa ngi lay naanaaleel dégg nga. xam ni bis bi du bis bu ndaw daal. lépp lu si waay mën daal pour def ko te nit ñu kontaan rek bu soobee suñu borom dinañ ko def. gars yi dinañ naan was gars yi dinañ naan tee dinañ naan kafe dinañ naan meew. incha allahu rabi waaw amul leneen lépp loo bëgg a laaj nag ñu ngi lay déglu. waaw góor ayca nañ nañ jàll ci beneen jëwrin loolu mën ta ñàkk murit maa ngi lay. waaw bu wax téléphone mu coupé. Ah, ñu ngi leen di siyaar di leen màggal bu baax di leen jox seen wàccuwaay bu nan lan ngeen di dund mbégte màggal bi bëccëgu màggal yor-yor gi waxtu wi tembe ngeen nekk fii ci kër si ñëpp. waaw ñu ngi koy dund rek si barke borom may ñun moom xam nga soxna may laxaat mooy sunu bunt sëriñ bi te bu bëggee rek ñu bëgg te bëgg moom fi muy tàmbalee mooy ci tàmbali waaw te ba nu tàmbalee ba léegi ñu ngi bëgg ndax sëñ Touba ko ne xam na ni bésu 18 safar gii saa bu musaana ñëw moom ay nat yu met la ciy daj moom sëñ Touba waaw moo waral ñu naan noon yaa ko génne woon néegi mbàkk baari sàndar ma saako naan ndar ngay jaari mu jaari ndar ndar di bëgg a mel ni daaru bés bi maanaam ñun mbégte la si ñun loolu nag sëñ Touba moo ñu ko fagul waaye sëñ Touba saa bu 18 safar ñëwoon lu metti lay daj waaw ay natt ak coona moo tax dañuy santee waat loolu sëriñ bi di ñaanal nag buuru jigéen ñi muy soxna may laxaat gaynde ak sëñ Abdou mu sëñ Fallou xam nga gaynde gu jigéen moom bu jàppee da ngay xam ni jàpp na waaw mooy suñu bunt sëriñ bi waaw yàgg yokk wér rek jom bari la ca maam sa koy jël te doomay doonu bàyyi jom ja waaw murit waaw góor bisimilah ziar naa la doola ziar bu wër taw feex tur bi nan la tur bi am teel booy soo fexe ay bële ba. sëñ Bamba kër sëñ Abdou Karim dafa neex. lépp la lépp la barke sëñ soxna May dafa neex. dafa neex ñun la joie la ñuy dund. waaw mbégte mi la fii mooy la terre promise. fii mooy la yow wax nga ba pare da nga koy bàyyi moom da nga may bàyyi ma wax noppi kay noppil moom mu wax. moom was la fi nekkee was. <laughs> yow géréel wax bi suñu xol yëpp moo koy neexal. géréel wax bi loolay dëgg. waaw mais was bi dafa pareegul wala faal. waaw mais bu paree na ma dal. waaw màgg gi daal ñun luñ ci wax. waaw kontaan na ñun suñ tubaab yi luñ defal. jërëjëf hmm. jërëjëf da ngay jël da ngay jël man lii day feeñ tale set TV moom moo ngi ci direct bi de di wut ko snap lii kenn musu koo gis kenn musu ko gis <laughs> waaw yeggaleel mi ngi lay jël waxal <laughs> ñun sëñ Touba li mu defal dafa rëy dañoo kontaan ñun lii mbégte la su ñun parce mhm. que sëriñ Touba saa su ne dañu dund mbégte bilaay moo tax sama xol doo fees lii maanaam dama kontaan barke Serigne Touba. waaw góor waaw góor jàmbaar rek. jaajëf Murit ayca Kébé euh, ma xam naa ne bu ñu toppee Baye Fall damay ragal ne ah Murit doo ma jox tengaare bi nag bi tàng ah yow nga bay fi almuridee romb fi ñoom almuridee dem ci ñe gaay yi. waaw mais gaay yi ci Baay Faal lañ bokk. waaw noo ngi ziare ñàkk ziar nañ man sax dama warutoon ndax ndax sama kilifa daa fa ba noppi. waaye gi xam nga sëñ Tuubaa moom buñ ko dee sant. te xam nga sax fi may njëkkee mooy ñoon nampatal ci lii mooy makaarimu axlaax mu yar rek teggin di koy sell yi bernde taxaw ci màggal gi maanaam. Mm-hmm. waaye nag kër soo maanaam kër yi moo bindoon noo xam ne. Mm-hmm. Euh, da di taxawaay suñu borom mhm. suñu borom teraanga rek la xam waaw maanaam nag loolu day waral néeg gi fi gars yi nekk nii tey jii jaxasoo ku baax di maanaam di mën di liggéey liggéey bi yar gi ñu ci nampatal gi ñu ci nampatal moo ko waral waaw maanaam nag sant Sëñ Tuubaa weesuut njabootu Sëñ Tuubaa boole la ci seen jëm nga ànd ñëw ànd ba pare ànd ak yow nga li maam nga di liggéeyal seen maam loolu daa kawe maanaam nag dañuy ñaanal sëriñ bi mu yàgg fi di ñaanal soxna May moom Cheikh Abdoul Karim Mbacké suñ ma defal koy tawféex yaatoo yaatoo yaatoo ba maanaam liggéey bi nga xam ne ñu ngi ko ci liggéey ndax soxna May du màggalu Tuubaa kese la am màggalug Tuubaa màggal Kazu Rajab màggalug Ngay Mam Balla màggalug euh, Mbakke Baari Jolof maanaam taxawaay boobu dafa rëy ci yoon wa nga xam ne kuy liggéeyal suñ Tuubaa te taxaw ci ñeent yi képp daa doy sëkk ak barke mm, waaw day jàmbaar wax naa ko sànq nee naa la la ca sa da koy jël te doomay doon bàyyi te kebe euh, gaynde du jur muus de barki Sëriñ Bamba gaynde du jur muus Serigne Bambaay sa maam Serigne Fallooy sa maam Serigne Abdou Karim ay sa baay nii nga mën a mel euh, gis nga fi nga xam ñu xool fi nga xamante ni euh, moom moo di waañ bi bàjjen wax dëgg yàlla xam naa ne Mbacke Balla nangu euh, xëy na wax loo ko dana jafe wax loo ko wax loo ko dana jafe waaye bàjjen bëggoon naa ñaari kàddu cant rek ñaari cant ñaari kàddu cant nga wax ma sa mbégte sa sentiment ci li nga gis waaw xam naa ne mosoo wax naa ne mosul wax waaye mbooloo mi nii mu mel ci sa kër gi Eh, war bëggoon naa xam sentiment am actuellement yëg-yëgam yëg-yëgam ah, fii mu toll nii lan la bàjjen bëggoon na bëggoon naa xam loolu waaw waaw waaw man maa bëgg nga wax ma sa yëg sa yëg rek ñaari kàddu rek waaw <laughs> ñaari kàddu rek doole Cheikh Abdoul Karim <laughs> ñaari kàddu sa yëg-yëg actuellement ci yor yor màggal gi nga xam ne sa maama ko fàggu mu mel nii ñëpp ñëw kër gi mel nii mu mel sa yëg-yëg lan la. waaw sant sant yàlla rek ak mbégte li ñu Sëñ Tuubaa defal mënuñu ko ko fay. waaw xam nga jaam bi saa su ne dafa war di sant boromam waaye Sëñ Tuubaa moom dañoo sàkkal bis muy bisub tey bi kon mbégte mi ñu ci àndal mënuñu ko mënuñu koo wax sax waaw boo xoolee lii rek xam ne lépp mbégte lañ ko defee hmm, jërë ngeen du ñu ko wax loo lu yàgg ndax may nañu loo xam ne xëy na bariwul lu ko média di am exclusivité la ah bàjjen bariwul lu ñuy dégg kàddoom xam nga liñ naan euh, bérigo yi fees duñu yëngu boo ko dégloo ci yar gi kebe gis ko ci dal gi gis ko ci grande dame bi euh, dotée de de de de valeur euh, nekk femme de valeur nekk femme boo xamante ni euh, bu ko neexoon ne doomi soxna la barki Cheikhul Khadim toog ñuy sukk akaraam waaye ak taalibe la jënd lépp jaxasoog taalibe yi ne ci biir kër gi ne ci biir waañ bi di bernde kebe du ñu yem fii xam a kër Serigne Abdoul Karim pale la dafa yaatu <laughs> moom ngay dégg ñu di ko way daan bàyyi Abdoul Karim borom pale ba ca Nindi kër gi pale la kebe jëlal dressage yi ah jël jël taabal yi ni mu yànje fii gis naa fi ay bagages yoo xam ne ñi sant Sarr ñi sant Dieye ah merguez yaa ngoog ah, ah, hors dog yi tubarkàlla li nga xamante ni ah saucisson yi merguez Kébé lu ne gis naa ko Kébé Kébé ku may summi Kébé tey ku may summi barke Serigne Bamba Kébé sama xol bi suñu toll li sedd na sama xol bi dafa sedd guy ndax lii mbégte la ak cant la ak cant la te ku ne cant ne bernde. te lii mooy cant gi Kebe kër gi dafa yaatu xam nga wax naa la ko léegi-léegi ñu ngi fii nga xamante ni moom moo di diwaanu soxna may laat waaye du ñu yem fii du ñu yem ci diwaanu soxna may dañuy daal di génnaat dugaat feneen ci kër gi daañu dem kër bàjjen euh, kër yaay puy daañu dem kër yaay mbàkke wan leen li nekk ci biir kër yi ndékk gi biir kër soxna may laat euh, moom Cheikh Abdoul Karim nii la mel Kebe nag fi mu toll nii dama mar damay jël ndox loolu mën ta ñàkk kër boo cee dugg ca bunt ba ngay jaar foofu ñu njëkkee kookoy taawu ki nga xamante ni moom moo di euh, Cheikh Abdoul Karim Mbacké di bàjjen soxna may laat si moom la ñu njëkkee euh, muy leeru ki nga xamante ni itam moom moo di euh, yaay Mbacké gannaaw bu ñu jógee foofu ñu ngi fii ci kër yaay puy lépp ci biir pale bi la nee naa leen dinaa leen woon pale Cheikh Abdoul Karim bi gannaaw bu ma génnee ca wàllu wee dugg ci wàllu yi su ma noppee naa leen woon ëtt bi wan leen cour bi wan leen pale bi ni muy yànjee ak dressage yi kebe da ngay ñëw gis nga yooyu ay xeetu pittax laak yooyu gis naa fi ay autriche gis naa fi ay natt gis naa fi lu ne ba ci am na ay euh, rabi àll yoo xam ne sax gis naa leen ci biir kër gi maanaam ay euh, jur wala ay mala yoo xam ne ci biir kër gii rek laa leen gis fii ci pale bi euh, nañ dugg biir kër yaay puy ñu wan leen moom itam ana nan lay dundee li nga xamante ni moom moo di màggaluk Cheikh Ahmadou Bamba ji ana nan lay dundee li nga xamante ni moom moo di màggaluk maam Cheikh Abdoul Karim ji ah kebe tubaarkàlla kebe ñëwal kebe fii moom dina sedd xaw ma ku lay summi mais bu yeboo mu topp sa ginnaaw ñi ngi kër yaay puy euh, moom itam ñu ñëw ngir xool ana nan la dressé ana nan la xëyee ci bëccëgu màggal gi fàttali mbokki téléspectateurs yi ñuy bàyyi xel ne ñoo ñuy topp sur la 7 TV màggal 2023 euh, fii ci nindi kër Cheikh Abdoul Karim Mbacké gis naa fi soxna soo xam ne moom ci ñun la bokk damay nëbbu micro pour wax ak moom man samay jël xanaa moon dama siis Alaaji Kebe alaaj non wax Faat Mbay yaa ngi en direct sur la 7TV enregistré wu de direct laa nekk boo bañee àdduna yëpp xam ne da ngaa bañ euh, kaay Faat Mbay nuyu naa la taalibe Cheikh Abdoul Karim bi yaa ngi am sant bu baax waaw euh, moom moom suñu conseiller la ci ñun la bokk moom itam nekk ci wàllu média euh, nekk ci internet bi di def liggéey bu am solo moom jigéen la ju ma naw parce que bariwul lu ma koy séen ci yenn yi wala ma ko ciy dégg tubaarkàlla buñ ko fekkee fii Cheikh Abdoul Karim mënta ñàkk ñu waxtaan moom ci liggéey la ne mais moom dama bëgg a xam réaction en que taalibe en tant que murid Faat Mbay nuyu naa la maa di la ziyaar di la jaajëfal euh, di nuyu waa tv euh, di kontaan ci ñoom di leen jaajëfal ci liggéey bi macha allah tabaarkalla. Touba yaatu na waaye kër Serigne Abdou la fekk. waaw mooy sama sëriñ. mooy sama yaakaar mooy lépp ci man macha allah nu ma mel sëñ Abdou Karim moo ma ko def mhm. sama sang bi dama koy ñaanal mu dund dama koy ñaanal mu wér kenn du moom sëñ Abdou Karim Mbacke Falilou sama sang bi moom laa doyloo boo fi fekkee war na. yor yor màggal ban yëg-yëg nga am. kontaan rek kontaan ndax ku yokkul da ngaa wàññi te màggal la coowal ndox yeeg yooyu embouteillage yeeg yooyu malgré que màggal gi mi ngi neex yokkute mi ngi ciy am sant yàlla rek sant sëñ Abdou Karim Mbacke Falilou sama sang bi. waaw Fatou Mbaye la bëggee nañ ko bu baax a baax borom sans limite moom suñu la bokk Baye Fall maa ngi lay ziar. maa ngi lay delloo ziar bu baax kër la ñu la fekk. wallaay ndeysaan moom la ak sa taxawaay ci kër. Mouhamed Ngom. ñu mhm. ko wax Mouhamed Baye Fall. Mhm. waaw di sant yàlla ci liggéey bi. Mhm. di wax ne lépp ay yokkute la. liggéey sëñ Tuubaa nag moo wóor leneen lu waay def lu du liggéey sëñ Tuubaa jàpp naa ne di nga ci am ay deltu ginnaaw ñun nag am gis nañ ci ay yokkute bu baax a baax a baax a baax suñu yaay booy moom yaay puy mhm. yaay Mbàkke ndesax ñëpp benn lan mhm. ñépp laay boole leen nuyu mhm. di wax liggéey bi nii la mhm. ndeysaan liggéey bu am solo lañ fi nekkee mhm. sëñ bu Karim Mbàkke nag dañ koy ñaanal mu yàgg fi loolu tëwër borom Mbàkke wax la yéen tamit ñu seen liggéey na solo dara jëy Serigne Touba jërëjëf ah, ana ana moom mooy mooy sama jëwriñ ci kër gi mooy sama buntu murid njaxas bi rafet na de waaw macha allah kay Baay Faal la waaw yor yor waaw def nii rek waaw di liggéeyal sëñ Abdou Karim rek ànd ko ak soxna su baax si muy soxna Faat Mota Bindu Puy ku gis teraangaam yi xam ne jàmbaar ah, na fi yàgg te wér daal barki sëñ Fall ma ñu dugg ci biir kër gi ma wan la ana fan la ñuy waajale bernde yi foofu laa lay bëgg njëkk a parce que damay bëgg bu ñuy waaj bernde yi ma wan la hygiène bi muy àndal wan la taalibe gi muy àndal euh, kër yaay puy la ñu nekk moom itam di euh, soxna ci ki nga xamante ni moom moo di Cheikh Abdoul Karim Mbacké borom makaarimal axlaa Kébé kaay ma wan la yu bari wan la ay ruq <laughs> akamaa doy waar xolo xolo xolo fii kaa xol fii maa leen di ziar gaa yooyu nekk ci cuisine bi ñooñ ñoo nekk ci cuisine bi aja fii fii itam fii yaaññi na de fii defar nañ ko ba mu baax salaamaaleykum an xaalim Cissé Cheikh xaalim génn na mu Mouride siyaar naa leen faal faal kaay gis nga li ma lay wax ci hygiène bi ñoom dafa mel ne ñoom ñoo ne ci wàllu waa UCG ñi ñoo leen fi nekkal <laughs> kenn na kenn wax ci ñoom murit maa ngi lay ziar ñu ngi ziar maa ngi gis ñenn ñu ne ci bernde yi yéen ngeen fii de ci mbalit mi maanaam euh, hygiène kër gi moo leen ñor yéen waaw hygiène bi kese moo ñu ñor mhm. ndax liggéey bi fépp la mhm. waaw ñun moom ñu ngi côté bi ñu ne UCG Baye Karim Mbacké mbaake waaw amul leneen dëgg lu leer bi laa xam nga xam nga lii mënta ñàkk parce que fu fu ñuy defaree ay bernde du ñàkk mu am ay yoo xamante ne nii day day day day waa caay papa ñëwal très bien xam nga xam nga yooyu mën mënta ñàkk moo tax léegi nag day am ñoo xam ne ñoo féete ci wàll wi nga xam ne ñoom ñooy for déchets yi ñoom ñooy for yi nga xamante ni mooy ordures yi dajale mbalit mi bu ko defee kër gi du du du am benn kii boo xam ne rek dina déranger kenn euh, foofu mooy euh, cuisine bi fii fee ñu jógee fa lañ doon waajale bernde yi euh, bu ko defee kebe dañuy delluwaat fële maa bëgg ñu gis soxna yaay puy moom itam bëgg naa ñu gis taalibe gi ne ci moom bëgg naa ñu gis woyef gi ne ci moom lu toll ne soxna Cheikh Abdoul Karim daa war di toog gars yi sukk di raam waaye kaay ma woon la jaxasoo gi mu am ak taalibe yi wala jaxasoo gi mu am ak ñi nga xamante ne ñoo ci kër gi eh, kebe kaay murit siyaar naa leen Fall ñëwal ni <laughs> na kenn ñëw rek waaw la Ousseynou Diouf Ousseynou nga nekk fii ci kër yaay puy taxawaay bi lan la. waaw taxawaay bi de ñun ñu ngi ci organisation bi. waa di préparer suñu ndekki nii. pour jox ko ñi fi nga jot a teew nii. wax dëgg loolu moo ñu tax nekk fii nii. ñun moom liggéey bi rek wéyal liggéey bi ni mu gën a baaxee ni mu gën a selle. ni ko Sëñ Tuubaa bëggee rek waaw loolu moo ñu tax di jóg waaw kii waaw borom makaarimul axlaa <laughs> màggalu Sëriñ Bàmba gi mbégte kese la màggal gi dafa neex xoolal ma Baay Faal ñu toogee ci suuf xam naa itam dañoo ne woon ci waar wi ndeysaan ba ba nii rek daal di daal di xaw a xaw a sonn waaye duñu duñu bàyyi maa ngi siyaar sëñ Xaadim waaw maa ngi lay koy delloo màggal bu baax waaw fi la gis nañu gis nañu bi waaw mais day mel ni da koy def ak mbégte waaw loolu moom tawfeex la moom ak mbégte ndax ndax ndax suñ suñ caaw moo ñu defal lu ñu kenn mm-hmm. si ñun loo xamante ne baay mënu ko si ñun mm-hmm. loolu la waral saa su ne bu ñuy defal suñ caaw moom mbégte képp lañ siy doyal mm-hmm. waxtu ñoo ànd ak ki nga xamante ne mooy chef bi Kër Mbacke mu suñ fàllu mu boole ñoog muy soxna Faat Bintu Puy waaw ñu moo xamante ne defal nañu lu ne si àdduna moo waral ñun lépp luñu lépp luñ koy liggéey rek dañ koy dañ dañ ciy am dañ ciy am mbégte waaw moo tax saa mooy li ma ko waxoon si jëmbat garab gi rek nee naa ko biir kër Sëñ Fallou gii boo si amul boo fi amul dara kenn du fi am dara ndax moo ko liggéey moo ko liggéey te dañ ni joxe ñam moo gën moo gën julli moo gën koor waaw ndax kon kon kon kon boo boo boo booy ànd ak di joxe ñam kon da nga ci ànd ak loolu mbégte rek waaw ànd ak boo ñuy wax ci côté organisation bi euh, mbir yi depuis kañ ngeen euh, tàmbali liggéey bi parce que lii du liggéey yu benn fan euh, kebe xoolal ma façon dressage bi xoolal ma assiette yi nga fi gis vaisselle yi xoolal ma li nga xamante ni tubarkàlla moom moo di pañe yi mu yànj lool organisation bi ñaata temps la jël ana nan ngeen ko liggéeyee nu ngeen séddalee liggéey bi ngir ku ci nekk xam fi muy féete. waaw organisation moom suñu ndey dañu see dañu ba nga xamante ni saa def day yomb loolu si ñun waaw waaye dañuy jël suñuy nelaw lépp jaay. waaw lépp dañuy jël suñu nelaw yi lépp jaay ko jaayante koog jaayante bi waaw moo tax lii daanaka dana ko ñaari fan dina ko diire ndax démb boo xoolee démb boo xoolee bëtu gaay yi kenn nelawul loolu lépp bëgg bëgg bëgg mbégtey sëriñ bi rek lañ si sàkku mm. sàkkuwuñ si loolu rek a waral loolu rek loolu rek a waral lii mm. waaw loolu rek loolu rek la mm. waaye nag organisation moom tàmm nappatal nañ ñu ko ba nga xamante ni ba miin nañ ko léegi daal tàmm nañ ko ndax bañ bañ bañ dee ànd ak soxna si yaakaar naa ay ndaw boo si génnee suñuy at boo si génnee suñu at lu si at dooru bëreeti waaw ndax ëpp na 15 ans suñu ànd moom waaw eh, Kébé jëlal ma Baye taxawaay bi ni mu yànjee t-shirt yi organisation bi macha allah rafet na bu la neexee tamit ñëw ci wàllu yi gis naa fi ñeneen ah gis naa fi Baye Fall yi sol nañu ay t-shirt yu rafet murit siyaar naa la. tur bi. Rasoul Karim. Rasoul Karim euh, sa taxawaay ci kër gi. waaw daanaka ñëw fi rek pour xidma nekk ci li sëñ bi santaane daanaka ku ne xam ne ne yaay puy moom joxe ñam ak lépp moo ci mën waaw xanaa di ko ñaanal ak sunu borom tawféexal ko nga xam ne saa su ne ngeen ko ànd ak ñun ñu leen jaajëfal bu a baax daal kër yaay puy moom nii lay demee moom barke seen fàllu eh, Kébé eh, toppalal téléspectateurs yi bernde eh, ñu gis ki nga xamante ni moom moo di soxna Fat Bintu Puy moom itam du ñàkk ñu digtal ko suñu suñu suñuy kàddu mu digtal ñu ay sentiment mu wax ñu li nga xamante ni mbégte moom lay yëg actuellement ci màggal gi Eh, kebe gis nga biir kër yaay puy ni nga xamante ni noonu la mel eh, dressé nañu ndekki teg nañu bagage yooyu yooyu ah, wax li ma koy waxee depuis sànq rek màggal la cant la te cant ak bernde la waaye boo génnee kër yaay puy da ngay agsi fii nga xamante ni moom moo di ci hall bi eh, Kébé boo ñëwee fi fekk fi buffet bu doy waar fekk fi dressage bu yéeme nañu dugg ci biir ñu waxtaan ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci fii wàll wi ñu wax ñu ana nan la ñu organiser li nga xamante ni moom moo di màggal gi Kébé lii yàññ na de gis nga yooyu xeetu vaisselle yooyu yooyu xeetu bagage ah mais kebe kebe kaay jëlee ma table ji kebe kebe kaay ma table ji tuwaar kàlla kebe li garabu pom la <laughs> xam nga man lii musuma ah, kaa gis lii musuma kaa gis li garabu pom la kebe garabu pom barki maam Seera Faal xolal sëñ Tuubaa lu ne sëñ Tuubaa am na lu ne <laughs> <laughs> Ah, maa ngi taxaw ak benn mbokkum euh, taalibe taxaw benn kenn ci jëwriñ yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk fii ci kër Cheikh Abdoul Karim ci ëttub yaay puy euh, ñu waxtaan ak moom mu présenté ñu jëmm ci kan la ak taxawaayam ci biir kër gi murit maa ngi lay ñu ngi delloo ziar bu baax man la jëwriñ Moustapha euh, doomu yaay puy waaw doomu soxna Fat Bintu waaw ñu nekkal ko fii ci waañ bi ñoom dongo yi yàgg koo def mu yàgg ko defee nii. waaw mais fecc nag bu neexee nday jaa jàpp ci ndam parce que lii yëpp moo ko jëndal boppam lii yëpp moo ko jënd te yàggul ba màggal gi teroo moo ko jëndal boppam jox ñu ko ñu koy liggéey. day jënd ay bagages yu bees tàq ndax màggal gi. fayul kenn fayul benn traiteur li ngay gis ni yëpp moo ko moom ci xaalisam la ko jënd loolu laa bëgg mu leer benn traiteur ñëw fi lii yëpp bagage yaay soxna Faat Bintu la moom moom lépp waaw soo xoolee ndekki yi mi ngi nii moom génne na ko sëñ bi la ñuy xaar mu ñëw ñu séddale kon sëñ bi faa mu génn ñëw ñu présenté ko dressage bi waaw waaw waaw moo tere bu génnee boo gis ko ñu présenté ko ba mu tàmbali mbooloo mi mën a ñëw ndekki parce que boo xoolee fii ñu ko def du pour ay gan amul ma yàlla amul kii ci mbedd bi lañ ko def ci cour bi ku ñëw ci nga bokk waaw dañu bëgg sëñ bi li mu laal. bisu màggal gi ku ci ñëw rek am ci barke boobu ñu ñu séddoo ko ak caméraman bi ak taalibe yi ak ndongo yi ñëpp jàll ci. boo ñu doon wax tey ci côté Euh, ah, lii liggéey bi ñaata temps la ban waxtu ngeen ko tàmbalee wàcc ak liggéey bi ana nan ngeen ko euh, euh, séddalee ci ay pàcc ba mu yomb. waaw maanaam maanaam balaa màggal 15 jours avant màggal parce que boo xoolee matériel bi rek pour monter ko rek day jël temps matériel bi yu ci ñëpp yu bees sàq la ñëwee ci carton am yëpp ay importé la montage beeg affaire yooyu dressage yi laver ko. bon essuyer ko affaire yooyu yëpp day jël temps waxtuma la ak produit bi war a def mise en place bi loolu bon production bi gars yi dañ fi nekk depuis bërki démb di defar di defar di defar ba tey boo gisee nii lépp yemb ni ñoom ñoo ci nekk te ba léegi am na yoo xam ne pareegul mu ngi production te génnagul ba léegi nii. boo ñu doon yëkkati ay kàddu seede ci sa wayjur wi soxna Fat Bintu taxawaayam. soxna Fat Bintu mënu wax ci moom kilifa gi waaw dafa doon koo xam ne ñun moo ñu nampatal si sëriñ bi bañ dalee ànd ba mu ñëwee ci kër gi ba léegi man maa ngi ànd ak moom soxna Fat Bintu yóbbu na fu ne. man gis naa ku ne ci réew mi soxna Fatou Bintou deseelutuma dara moom ni mu koy waxee naan man deseelutuma dara moom deseelutuma dara moom moo gore ñun quarantaine la ñu yor fu ñu taxaw soxna Fatou Bintou dañuy tëjël bunt bi moom moo baax barki Serigne Bamba day defar ba mu baax taxaw ci ginnaaw ñun lay imposer pour ñu wane ko te lépp moom la moom moo baax rek kër gi bu demee ba mu mel ni rek moom la barki maam Serap Fall waaw. Baye Fall bi mënta moom itam ay kaddu euh, murit ñu ngi lay ziar. ñu ngi delloo siyaar bu baax a baax yaaram. Euh, waxtu yor-yoru màggal gi ngeen nekk ci wàccaay yu ndékki yi. waaw xanaa di sant yàlla bu baax a baax di julli ci yonent wi di sant Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul di sant bu baax a baax a baax Serigne Falilou di ñaanal sëñ Abdou Karim mbàkke naaru mam Awa Faye mu yàgg fi lool te ànd ak wér di ñaanal suñu ndayu dara di soxna Faat Bintou Pouy Mbacke ndax lépp moom la ni ko Baara waxee noonu rek la demee ndax nu nu mel mooma lu am mooma bu ñuy sa sa safoo fépp ci àdduna lépp moom la ndax dañoo nekk jëwrin féete ñaari tali ak Kër Masaar yor mbooloo ànd ceeg suñuy waa kër ndax Baye Murit mi ci daara ji la bokk waaw ñu ngi sant ñëpp nag di gërëm kull ku ñëw kër Faat soxna Faat Bintou Pouye ñu ngi sant ñëpp waaw ah, jërëjëf jërëjëf euh, Kébé ñëwal euh, ba tey gis nga li nga xamante ni moom moo di buffet bi am fii ci ëttub euh, Baye Abdoul Karim fii ci biir kër Soxna Fat Bintu Pouy Mbacké mu nekk dressage bu yànj lool lool lool lool lool macha allah xolal xolal ma yi nga xamante ni moom moo nekk ci yi mbir ya nga xamante ni dañ ko defar ba pare li ma lay wax rek li ma gën a neex ci dressage bi dafa am hygiène parce que jëluñu bagage rek teg ko noonu dañ ko enveloppé ak benn papier boo xamante ni mën naa wax toile bu oyof rek bu ko defee ngay seen mbir yi di ko xemmem di ci bàyyi xel xam nga loolu daa am solo ñam da nga koy xemmem ñam dañ la ko war a présenter d'une manière boo xam ne da nga koy xool rek xel mi murit kaay loolu dafa am solo nga ne. di apprécier da nga koy da nga koy xool rek xel mi di ko lekk barke borom Tuubaa xel mi di ko lekk. barke borom Tuubaa parce que boo xoolee lii mu taaru lool. suñu yaay soxna Fatou Bintou Pouy chaque at nii la koy nii la koy taxawoo boo xoolee plate yoo gis fii nii yu bees la ñun ñoo ko dajji plate yooyu yëpp man maa ko doon dajji di ko di ko ranger le fële chaque at day dajji yu bees yi nga xamante ni moo fi des mu jël ko jox ko ndongo yi muy sunu yaay ju baax di jàmbaari Cheikh Abdoul Karim Mbacké borom makarim al axlaa di ñaanal sang bi mu yàgg fi lool lool lool te wér ndax sëñ sëñ bu mag bi dane woon bésam bi bu ñëwee di dalee ginaar ba ci giléem bu ko kenn xeebal lu ci waaye mën na ko na ko barkeeloo ci bés bi mu nekk tawféex kon Cheikh Soxna Fatou Bintou Pouye gëm nañ ne mu ngi ci yoon wi parce boo xoolee décoration yi ñu def fii nii ay millions yu bare bëri la ci def te chaque at nii la koy defee Kébé xoolal li Kébé xool Kébé xool jëlal ma yii kebe jëlal jëlal jëlal jëlal ma yii xam nga ne yii lu yéeme yéeme na lool lool lool te soxna Fatou Binetou Pouye lii rek lay la la ñuy defar chaque at chaque at mu andi loo xamante ni daanaka ñi fiy ñëw ku ci nekk sa nga jël di vidéo ndax gis loo xamante ni lu la yéem lay doon ci wàllum décoration kon di ko sant bu baax a baax a baax moom soxna si di ñaan chaque at suñu suñu bi di gën di yokk xéwal bu baax a baax a baax barki Seexul Xadiim en tout cas loo mën a dégg Kébé décoration bi man ëlëm na ma yéem na ma euh, xoolal man garabu pomme bi feebar na ma trop <laughs> garabu pomme bi feebar na ma trop am na problème ci garabu pomme bi quoi euh, Kébé xoolal boobu boo xeetu xeetu xeetu xeetu saladier ñu def ci li nga xamante ni moom moo di ay euh, orange ak yëf xoolal ma fii li jet d'eau la mais fi ñu toll nii d'eau bi dañ ko remplacer man xaw ma jet de fruits laa ko war a tudd ma mais jet d'eau daal changé nañ ko soppe nañ ko moom génneetul ndox fi mu toll ay fruits lay génne xaw ma jet de fruits la xaw ma waaye nekkatul jet d'eau daal moom nañ ko wutal beneen tur fi mu toll euh, tubaarkàlla décoration bi yanj na fii ci kër Baye Abdoul Karim ñuy dal ki nga xamante ni moom moo di soxna yaay puy waaw jaaraama yaay puy moom mooy soxna Fat Bintu puy Mbacke di soxna Cheikh Abdoul Karim di soxna su baax di jàmbaar waaw euh, kebe xoolal yooyu xeetu fruit ca kaw kenn mësul gis lii ma bàyyi la nga digtal téléspectateurs yi li nga xamante ni euh, moom lañ fi gis ci décoration ak euh, li nga xamante ni bokk na ci taaru kër gi Cheikh ceex boo noppee ñëwal ma ni ah lii moom fii moom fii moom wàllum naan doo nga fi am kebe wàllum naan ah kebe kebe boo noppee ñëw fekk si ma fii ci table ji maa ngi lay ziar ku baax. ñoo ngi lay ziar bu baax a fii nga taxaw yaaññi na. waaw merci beaucoup gis nga vraiment mu doon mbégte mu doon mbégte boo xam ne carrément dañ koy dund parce que bésum sëñ Touba bi moom boo demee ba. ñu boole la si biir nga dund ko ñàkk ko rek kon loolu ab tawfeex la ab tawfeex moo tax ñu ñëw xam nga comme jamono yi aussi dafa tombé ak tàngoor boo xam ne tàng na trop moo tax ñu préparé ay cocktail yoo xam ne euh, boo koy naan day day day aspiré tàngoor bi day aspiré ñàkk bi mu doon loo xam ne vraiment waaw daf lay réfléchir doon loo xam ne vraiment bég nañ si trop trop trop trop trop bég nañ si trop yéen aussi ñoo ngi leen di gërëm leen sant parce que lépp lu ñu def tey jii mu rafet nit ñi gis ko rek apprécier ko c'est à cause de vous parce que yéen a koy wone vraiment kontaan nañ si yéen bu baax baax aussi di ñaan suñu borom si barki màggal bi yàlla suñu borom taxawu leen làq leen fi yàq yéegut may leen lu kawe seen jort si darajaay bés bi boo ñuy wax li ne ci table ji tey nan nga ñu ko mën a waxee gis naa fi ay xeetu jus de fruits yoo xam ne euh, bariwul lu ma koy gis boo may présenté table bi lan nga may lan nga ma lay présenté table bi d' abord damay ñëw si li nga xam ne mooy cocktail bi bi cocktail bi ma defar mi moom la ñuy wax sparkling love Sparkling Love dañ koy defaree à base de sirop grenade et Sprite le reste ce sont des clés en fait bi ci kaw virgin mojito virgin mojito bi ñoo ngi koy defaree à base de citron nana sucre waaw après fii nii si suuf ma defar ci smoothie ci à base de papaye bi banaan euh, à base de banane la léegi ma ñëw fii lii eau aromatisée la lii nag dafa doon loo xam ne carrément lu am solo la ndax ndox mi dafay raxas deret ndox mi dafay raxas deret daf lay dimbali à chaque fois mooy lii mu doon vraiment des canettes yoo xam ne ñoo ngi koy ànd ak moom bi aussi mu doon benn cocktail boo xam ne carrément maa ko créé nii à base de euh, à base de jus ditax bo à base de jus ditax boole ko màng bi vraiment accompagner ko ak sirop grenadine waaw vraiment. yi ñuy gis nii ci kaw table bi ay xeetu présentation la mais am na quantité boo xam ne dana doy ñu ne waaw waaw da li ñu def nii sit baar bi pour loolu waxee si baar bi rek mais am na yu des moom laa teg nii si suuf. c'est juste pour la présentation. waaw pour la présentation en plus le plus que ñoom ñuy consommer ñu gën a rempli waaw dañ koy xal di renouveler rek waaw. Euh, maa ngi ñëw léegi naan <laughs> man moom maa ngi ñëw léegi man naan gi moom. maa ngi ñëw <laughs> loolu mënut a ñàkk euh, Kébé fii la ñu nekk ci kër Yaay Pouy soxna Faat Bintu Pouy Mbàkke gis ngeen li ne ci biir kër gi ci ay ndekki waaye gis ngeen itam buffet bi nga xamante ni moom la def ci hall bi mu nekk dressage bu am solo téléspectateurs yi bu ñu sori nañu taxaw topp ñu ndax ci kanam tuuti Cheikh Abdoul Karim dana génn ñu ko li nga xamante ni moom moo di buffet bi ngeen gis jëmmam ju tedd gi jëmmam ju taaru ji jëmmam ju dal ji jëmmam ji nga xamante ni boo ko gisee sax defaru boo ko gisee sax texe Cheikh Abdoul Karim Mbacké moom maam Serigne Fallou Cheikh Abdoul Karim Mbacké sëtub Cheikh Ahmadou Bamba bi nga xamante ni moo ne fii ci pale bi ci Ndindy moom lañ leen di toppal magalam gi tey digtal leen ko ngeen seetaan ko alaaji Kebe nañu doxal kebe gis nga ko màggaluk Touba la fii ci kër Cheikh Abdoul Karim Mbacké ci pale bi ci Ndindi euh, ñoo ngi fii ci diwaanu ki nga xamante ni moom moo di soxna Fat Bintou Pouy Mbacké yaa ngi koy gis ci toogaay bu yanj bi ci taaru bi gi ci yar gi euh, macha allah muy soxna soo xamante ni jàmbaar la jàmbaari Serigne Bamba la jàmbaar la ci màggal gi yaa ngi koy dégg sànq ba tey ci seede yi ni ko taalibe yi di waxe euh, bu màggal Touba xasee jub si daanaka bu xasee génn ci tamxarit rek màggal lay daal di waajal euh, da koy jaral tukki yi bagage da koy jaral fu mu gis lu taaru lu rafet jàpp na ne ci màggalu Serigne Bamba gi képp la yayoo euh, nga gis ko ni ko taalibe yi waxee li fi ne ci ay assiette yëpp lu bees tàq la ñoom ñoo ko daaj jël seen bopp nga gis termus yi gis kaas yi gis lépp loo xamante ne nii rek mi ngi fii ci palais Cheikh Abdoul Karim Mbacké bi ñu ànd ci ak ki nga xamante ni moom moo di soxna yaay puy Mbacké yaa ngi gis noonu taalibe yi ne ci ndigal nga gis leen ñu def seen ay t def ci nataalu ki nga xamante ni moom moo di Cheikh Abdoul Karim Mbacké ak soxna yaay puy ñu ne ci service bi fi ñu toll nii ñoo ngi ci li nga xamante ni nii moom moo di service bi te xam naa ne incha allah ci kanam tuuti dañuy daal di génn fële nga xamante ne nii moom moo di ca euh, euh, euh, ëtt ba foofu ca hall bi nga xam ne yaa ngi fay gis buffet boo xamante ni buffet la bu am solo lool waaw en tout cas ku fi ñëw xam naa ne da nga ndékki ndékki lu mucc ayib li ñuy wax naan petit jeunes royal tey loolu moo xew fii ci Ndindy loolu moo xew tey fii ci kër Yaay Puy Mbàkke ma ngoo ko toog di soxna soo xamante ni li tubaab di wax une grande dame c'est une grande dame Alaaji Mbay suma xarit ngi taalibe a Ahmadou Bamba baa ngoog aka bari jom aka baax maa ngi lay nuyu taalibe Serigne Bamba bi maa ngi lay ziar. maa ngi lay ziar sama waa ji. maa ngi lay nuyu. tey ñu ngi fii ci kër Cheikh Abdou Karim. Mhm. xam nga yàpp yi ni mu koy defee chaque jour bu ne ci bisu màggal gi. Mhm. ndekki ni mu koy defee yaakaar naa du mu ne amul fenn mais bariwul. Mhm. dara waralu ko nag lu dul xëram ci Serigne Touba. Mhm. ak topp gi nga xam ne moom sëñ Karim rek lay topp. waaw kenn waaw moom sëñ Karim rek lay topp Karim rek lay topp boo gisee mu toog nii macha allah. di diriger boppam mënoon naa toog. woote di jox ay exécution naan def man li ma gën loolu ci la bokk dama naan njabootu Cheikh Abdoul Karim gi. yar gi mu leen yar. ba bisug màggal gi mënoon nañoo toog ci seen i saal mbaa seeni i joxe ay ordre taalibe yi mm-hmm. mais dañoo génn jaxasoo ñoom nanguwuñ sax ñu ëppale leen ci ci ci ci organisation bi mbaa liggéey bi. xam nga lu waral loolu. waaw bis bi mooy bisu jëf jël. Mm. gis nga boo toogee yónni sa taalibe. waaw bu sëñ bii fay sa taalibe du la fay. Cheikh ko waxoon. waaw moo tax bis bi ne woon na bi ñuy gas euh, euh, raayu njaareem bi. ne woon na sëñ Tuubaa bu wooteeb liggéey. Mm. boo yónnee sa doom bu delsee doon sa baay boo yónnee sa soxna bu delsee moom mooy doon sa borom kër kilifa yi loolu lañ xam ba doon dox taalibe rek na leen def leen de ñooy ñëw di ko ànd ak ñoom ak sëñ Tuubaa dafa maandu maandu goo xam ne lu ko waaye liggéeyal da la koy fay loolu moo tax ñoom ñooy ñëw jiite mm. ndax ku nekk bëgg bëgg fayuk sëriñ bi yaay puy nag euh, ni mu koy defee moom mbégteem Cheikh Abdou Karim rek lay sàkk boo gisee yi muy def damaa bëgg nga di ko ci kaw nay biir waaw moom mbégteem Cheikh jooju bul ko di yellu bul bul bul ko bul ko yellu te ko biral waaw mbégteem Cheikh Abdou Karim rek lay sàkku de fu mu mën a dem lu mu mën a def foo ko mën a dégg yaay puy mbégte Cheikh Abdou Karim rek lay sàkku waaw moom sëñ Karim rek lay topp loolu nag euh, topp sëñ Abdou Karim mooy topp sëñ Fallou waaw topp sëñ Fallou mooy topp sëñ Touba topp sëñ Touba mooy topp yonent bi te boo topp yonent bi fu mu la jëmee ci yàlla te yàlla moo tax man may yow rek laa bëgg <laughs> moo tax bis bi ndeysaan dañ ci bég waaw dañ ciy bég bu ñu ñëwee fii gis lii teraanga yi xam nga lii lu muy wane Mara. mooy sëñ Tuubaa moo moom lépp. moo moom lépp. mooy sëñ Tuubaa mooy plan fond bi. zimaamul wara asri la. la dallaahi fii yaddi. waaw waaw yàlla jox na waa jeex na ba pare njariñ la lu àndul ak lor. boo fi ñëwee yoon daaw. da nga doon lii ca bufe ba la jëm ca gis nga waaw toppal gars yi. waaw daaw bi ñu fi ñëwee. waaw da naan lii bu déwénee du am. waaw mais ren da nga naan mës sa am. te incha allah bu déwénee day yokk. waaw loolu nag li sëñ Tuubaa di wax ne saa nafxin bi laa daralin njariñ la lu àndul ak lor mm. chaque année day feeñ ci liggéeyam bii ba tax na yaay puy dañ koy ñaanal uh-huh. lii nga xam ne moom lay def di yëkkati ay millions centaine de million lay yëkkati di ko def ci màggalu sëñ tubaa gi yàlla na ko ko sëñ tubaa gën a man loo yàlla gën ko fee bàyyi bàyyi ko Cheikh Abdou Karim mi nga xam ne uh-huh. moom li may wax toppul ku dul moom moom sëñ Karim rek lay topp waaw taalibe yi sëñ Karim rek la ñuy topp li ñu gis ci moom gis ko ne ci sëñ Karim rek lay topp uh-huh. moo tax fu mu wootee ñëpp bàyyi lépp ñëw màggal gi yaatu na de. waaw waaye boo ñëwee fii da nga xam ne dañuy màggal de. dañuy màggal de li sëñ bi wax ne bernde. bégale fii moom ku fi ñëw kër sëñ Karim. par tey màggal bernde la bernde. bernde surtout ci yor-yoru màggal gi. waaye maanaam li li li ñuy ndekkee rek. Mhm. màggal na yeneen kër yi de. mbaa xam nga loolu. li ñuy ndekkee fii. màggal na yeneen kër yi. añ yi ñëwagul reer yi ñëwagul. Mhm. addiye ji muy yëkkati ji ko jox sëñ Abdul Karim ñëwagul. Mhm. te loolu du ko wax. loolu nag faaw ñu koy wax ñun taalibe yi ndax jëf ji dafa rëy waaw jëf ji bu rëyee faaw ñu di ko wax ñi ngi kontaan ci moom di ko di ko béggee di di ko ñaanal ayam bi yàlla na sax yàlla na ko yàgg a tooge barke Serigne Fallou yàlla bàyyi ko Cheikh Abdou Karim Mara kontaan naa yow xam nga ne puy duma duma mën a kii ndax sama waay maa ngi ñëw maa ngi ñooy ànd commentaire jeex na waaw ndax yow yaa may dalal ci kër gi faal nga ne waaw man damay ñaanal sëñ Abdul Karim mbake yàlla yàggal ko fi lool lool lool lool. waaw doole Serigne Fallou Mbacke doole ma borom Touba Mbacke. mais tamit di sant yaay puy mi nga xamante ne dafa jël tout tànk yi. Mm-hmm. def ko maanaam man ñun daal ñoo fay yaay puy. léegi léegi loo wax ci yaay puy. ma ne na dund. noo koy waxe puy yaaram dundal. puy aja keneen puy yaaram dundal. non <laughs> dund doyul. déedéet lu mu dund doyul barke maam Cheikh Fall euh, Serigne Bamba newoon na ku mën ca ma màggal gi rek yaa mën ci man bu ñëwee daf ne nañ ko ko santale yàlla suñu borom ca bernde li ko dale ci ginaar ba ci gileem nee na bul am gileem ba naw ko waaye bul am ginaar ba xeeb ko barke mam Cheikh Fall euh, Kébé toppal ma gaa yi ci buffet bi comme ñoom ca óol ba lañ jëm damaa bëgg nga toppal ma leen bu ko defee ñu gis li nga xamante ni moom moo di euh, bernde yi fii ci kër euh, Baye Abdoul Karim Mbacké borom makaarimal axlaa yaay booy kaay de loolu fii nga koy waxee kaay déedéet kaay ñëwal ci man loolu fii nga koy waxee. doxal dem Cheikhul wax ñuy dox dem. sëñ Bamba rek lan gëm moom lan wóolu moom lan yaakaar dëgg la barke maam Cheikh Ibra Fall waaye ñi ngi ñaanal sëriñ Fallu Mbakke di ñaanal sëriñ Abdou Karim suñu wasila ah. yal na fi yàgg te wér te lepp nag sëñ Abo mm. bu sëriñ Fallu ñuy ñaanal soxna yi yëpp yàlla may leen gudd fan ak wér mm. ak njaboot geek ñun ñu dem bay joxe ay milliards barke Cheikhul Khadim amiin barke Cheikhul Khadim ayca mi ngi noonu euh, Kébé ñoo ngi fii ci kër Cheikh Abdoul Karim Mbakke dañuy dellu si ci óol bi rek vu que yi fii lañ jëm si ñu dellu si ci hall bi